Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. am nañu carte boo xam ni buur géwél mooy fu nu seen rek ñuy dem ñu xam ne làmb xewle na nag moo jóg wala boog moo jógati ndax boobu ak léegi dafa mel ni loolu ñuy wax corona dafa yëngal làmb yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla bu mu lorati kenn ci réewum Sénégal yàlla bu mu lorati kenn ci àdduna wërngal këpp waaye dafa mel ni promoteurs yi corona lañ doon xaar pour yëngal ñi amul woon combat am nañ combat ñi jotul woon avance jot nañ avance waaye tey nag Jamaïcain production moo xewle gannaaw bi mu jógee ci saison deux mille vingt tëgg ay combat yoo xam ni kenn dootu ko fàtteeti Saalum Saalum ak bébé franc fu la fekk wulli ak liiru jaan fu la fekk tëgg xoyantaan ak Baye Mandione fu mu la fekk tëgg fii franc ak bébé Saalum fum la fekk bokk ci promoteur yi nga xam ne feesal nañu dal arène nationale duy ko ba mu fees tuddee ko ñi nga xamante ñoom ñooy Bambilor waaye ñëw taxawal combat boo xam ni adduna yëpp ñu ngi ko doon wër bu dee ca Gambie tolluwaay bi dañuy wax Modou Lo ak Balla Gaye muy France ak Leket moom la tëgg ca Gambie signature contrat bi dong day feesal dell dell dell euh, indépendance euh, stadium bu Bakaw. bisimilah mina seytaani rajim dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax julli si Seydina Mohamed di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass. di nuyu kilifa diine kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp di nuyu yéen ñu fi teew yëpp maa ngi leen di jaar di leen jox seen wàccuwaay képp ku liggéey ci presse ak di nuyu fi nga ñu fekk nii muy place boo xam ne suñu père Lamine moo fi nekk ak képp ku mu fi nekk ak ngi lay jaar bu baax a baax baax di nuyu tamit suñu naataango yu fi teew ci mel ni Pape Sarr production mu ngi fi maa ngi koy jaar bu baax waaw per Lamine tënk na wax ji yëpp jam production ñëpp xam na la benn jeune la boo xam ne bi mu ñëwee ci làmb ba léegi mu ngi jëm a créer ay événement tëgg làmb nag ak créer événement dafa utee ndax bi ñu ñëwee li ñu njëkk a def ci làmb mooy tëgg Baye Mandione ak Gora Sock dat amul dakaar ñu yóbbu ko ci région yi muy Ndar ndax ñoom ci dañ bokk ci làmb dañ war di gis làmb mbër yi ñoo seetaan télé dañuy bëgg xëy di leen di gis ñu jógee ko fa ñëw tëgg Iba Mar journée boo xam ne 4 heures tëj nañ porte yi ñu ne pourquoi pas ñun ay doomu Sénégambien lañ te bëree am na fu nekk ci àddina waaye bëree dóor Sénégal rek la amoon Gambie commencé di ci yëngu ba am seen roi des arènes ñu ne pour ñu jël làmbu Gàmbi wan ko adduna bi am fuñ ko yóbbu dañuy jël benn mbër bu mag Sénégal dem boole kook roi des arènes bu Gàmbi muy Baye Mandione ñu jël ma Mandione yóbbu ko boole ko xoyantaan mu nekk événement boo xam ne ñu gis TFM liggéey bi mu ci liggéey ak site internet yi bëri sept heures de temps direct àdduna bi yëpp suivre làmbu jooju ñu am lu ñu wane ci làmbu Gàmbi lu mel noonu nag doo ko def ci réew réew mi yaakaar la seen làmb ba pare nga dem di dellu ginnaaw ñu ne lan lañ war a indiwaat ñu jël leket ak France muy combat boo xam ne juróom-benni at promoteur bu nekk bëggoon ko ko foofu ci Gambie mënul sotti sa loxo ñu ñëw décroché ko def ci ay moyens pour taxawal ko tuddee ko Youssou Ndour lu tax ñu tuddee ko Youssou Ndour nag mooy dañu tëgg suñu làmb mu yebal tele teleem di télé privé TFM ñëpp xam nañ ne déplacé télé réew ak réew dafa jafe mu dem defal ñu fa 7 heures de direct boo nekkee ndaw nit defal la lu mel noonu munoo def lu delloo ko njukkal te delloo njukkal bi du xaalis boo koy jox da xool fam la defalee teraanga nga delloo ko fa teraanga ji ñu tuddee ko France ak leket bi ñu jógee ci loolu nag lambu am coow Double Tyson mi ñëpp xam nañ ne raatara na saalum ba nekk roi des arènes bu Kaolack waa Kaolack ne ko Tyson nekkatu ci lamb yow yaay sunu buur bi ko waa Kaolack tànnee ne ko yaay sunu buur jox ko raay jox ko mbaxana bi solol ko yére bi ne ko yaay buuru Saloum xoyantaan ñu ne mooy roi des arènes bu Gambie ñëpp xam nañ diggante Gambie ak Sénégal sorewul rawatina diggante Gambie ak Kaolack nekk dëkku lambu tey boo jëlee ay mbër fii Dakar ñaari mbër yu dëkkul Kaolack sax boo demee nga gis nu ñuy def stade bi ñu ñun ñun pourquoi pas du ñu créer benn événement mooy jël roi des arènes bu Kaolack boole koog roi des arènes bu Gambie fu ñu koy defee ñu ne Kaolack ndax Gambie baay ma Mandione bee yoon moo demoon fekk roi de arènes bu Gambie ñun dañ am philosophie boo xam ne ni ko Baye Mandione fekkee mun na war na mun a fekk ci mbëru senegal ñu wane la ñuy wax dëgg la suñu suñu diggante Gambie war nañ di mun a demalante lambu Sénégal dem ba roi des arènes Sénégal dem di bëre ju Gambie roi des arènes Gambie ñëw di bëre ju Dakar loolu mooy sunu sunu plan jamono yi nag dafa am ñoo xam ne du ñu am idée da ngay teg sa idée ba pare ñu ñëw bëgg ko kii ak yow bi mu demee noonu comme double juboo nañ ñu am ak moom contrat boo xam ne nii dañ koy téye pour bëre loo ko mbër bu mu bëgg xoyantaan quatre-vingt-quinze pour cent am na amoon nañ ko ba léegi lamb nag booy signé mbër contrat day am plan A am plan B A bi mooy diggante moom ak xoyantaan am nañ ci ay idées yoo xam ne dem nañ ba bëgg leen na proposé ñu def ko aller retour bu ñu kaw Kaolack ba pare dem bëree jiwaat Gambie ku ne fekk sa morom ñun pare nañ pour def loolu ci làmb ji sori nañ ci ñu ngi ci te am nañ yaakaar ne loolu dina nekk su loolu nekkul tamit ndax nit booy si ak moom da ngay signé ak moom lu leer lu taxaw làmb ji ñun ñëwuñ pour benn mbër moom mii bi muy dugg ci làmb duggul ci làmb pour benn mbër xoyantaan bi muy dugg ci làmb duggul ci làmb pour Double waaye am nañ ay philosophie yu leer ne suñu amul xoyantaan diggante Double Tyson ak baay Baye Mandione askanu Kaolack ñoo ko bëgg ndax xam nañ ne Baye Mandione ci carrière am ni mu bëree ji Kaolack bëri na te Kaolack yëpp ko sopp mook Baye Mandione pare nañ pour def ko fa événement ba tey amaan nañ ci projet boo xam ne Baye Mandione ñoo ko bëriloon a xoyantaan lamb ji yëgul ñoom ñett mun nañ leen a créer benn trio de choc boo xam ne seen diggante non mun pare nañ dama ne la max bi bu rëbee boo bëggee dugal bii bu da ngay lettraalu ndax ñun xaw nañu am tuuti expérience làmb gi xam nañ lamb lamb ji bu tijjeegul sax mun nañ xalaat ne ah lamb ji déwén situation bi lay demee nii ak nii lay demee te Kaolack te Kaolack dëkk bu bokk ci lamb la événement gëj na fa am coronavirus bi bu jeexee Kaolack ni dakaar di nammee làmb noonu lañ koy nammee du ñëpp ñoo mën a jógee Kaolack ñëw di seetaan ci làmb kon dafay jot ñu yóbbul leen ay événement yu mel noonu loolu moo tax tey ñu teg lii nii lamb ji nag pare nañ pour def ci loo xam ne incha allahu rabbi bis buñ ci paree ndax duñ xaar ba lamb ji passé ñu koy wax làmb ji suñ ci demee ba dugg ci ba jugee ci bu ñuy conté événement yi gën a réussir Sénégal dañ ko ciy boole waaw loolu moom dama bëgg na ko ñëpp bàyyi xel combat bii dama dama ne leen mooy comba bi gën a rëy ci histoire lamb tey Tyson non kenn musul boole ñaari roi des arènes musul am ci lamb kon suñ ko defee dañuy jàpp ne comba bi mooy combat bi gën a rëy Sénégal ci comba yi taxawagum yëpp te buñ ci duggee ba génn ci dinañ xam ne pomme de moromu new ci biir Saalum dëkku làmb yoo xam ne histoire yooyu ba léegi génnagul te ci événement bi lañ ko bëgg a génnee dinaa si cité benn dëkk Elton papaam dëkk ba mu cosaanoo ñu koy wax Ngabba cosaanu làmb bi fa am amul fenn ci àddina Elton ci boppam xaw ma moom xam na loolu waaye man xam naa li may wax te loolu yëpp war nañ ko mun a génnee ficelé ko ci événement bi dugg Saalum dëkk yi nga xam ne buur mus na fa jaaree xam nga dañ ne buuru Saalum buur buur da koy valoriser dugg Saalum fépp fu buur mus a teg tànkam nga laajte lan mooy histoire buur yi lan la ñu def fan lañ mus a jaar ñu génnee mbubu buur yooyu tëggal leen juñ juñ ñu bëre ku daan nag ñu ne la yow yaay vrai buuru Saloum. yow yéen ñu fi dajee yëpp fu ma nekk fekk ngeen événement bi nag dama bëgg ngeen porté ko mu nekk seen événement ndax lamb la ci biir làmb yi histoire la ci biir histoire yi d'abord dina am fu mu yóbbu làmb Sénégal ak Gambie dina am histoire lu mu wanewaat ci Sénégal. làmb dafa war a mën a yóbbu am lu mu def ci koom-koomu Sénégal làmb exploité guñ ko lamb lu ci nekk yëpp génnee guñu ko. bëree bi moo ci gën a tuuti làmb li mu war a génnee dafa bëri tey am na si ñoo xam ne mun nañu wax ci làmb lu bëri tey fii kenn koo fi gis am na ci idée boo xam ne mun na doxal làmb nañu jàppale làmb yóbbu feneen làmb waaw bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi di sant suma ñaari waajur maa ngi sant suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu waa axlu làmb yëpp rawatina Kaolack gi ma dëkk ak jàmm gën si Kambaaw di nuyu tamit waa Gambi xarañ famille maa ngi nuyu waa yëpp di nuyu képp koy béggee Double Tyson rek nuyu naa la waaw Jamaïcain am naa moom contrat moom laa ñëwoon pour def si nii euh, lu mu wax dégg naa euh, dégg na ko sama staff dégg nañ ko te d'accord nañ ci loolu euh, ñu ngi ñu xoolal roi bu Gàmbi muy xoyantaan bu fekkee ne d'accord nañ ak xoyantaan dañ koy bëre ji Kaolack bu fekkee ne tamit nee na d'accord ak xoyantaan bàyyi ma ñoon la may indil Kaolack waaw loolu waxtaan naag sama staff ba d'accord nañ ci euh, amatuma lu ma ci wax lu euh, continuer sama euh, entraînement bàyyi kook sama staff waaw loolu laa amoon pour wax diggante bàyyi ma ñoon waaw comme li ñu wax rek xam nga moom daf na dafa bëgg a taxal diggante Sénégal a Gambie tey xoyantaan indi roiam teg koom indi sama roi teg ko loolu dafa nekk loo xamante ne nii du nekk làmb ju tuuti te man pare naa pour teg sama roi pare naa pour teg lépp waaw moom it pat waaw moom laa la wax su fekkee ne am nañ xoyantaan baax na moo ma gënal bu fekkee ne amuñ xoyantaan tamit ba tey ñu bëreeg baay ma joon rek. waaw pare pour loolu waaw pare naa pour loolu noonu waaw. waaw bu ko loolu ci moom la des rek parce que man carrière laay def carrière gu may def euh, xaaruma comme benn benn mbër rek su ma amee su ma amee bàyyi ma njoon ma bëreeg bàyyi ma njoon waaw su ma amee xoyantaan ma bëreeg xoyantaan mais concentré ma ci comme benn mbër rek xoyantaan xoyantaan rek. waaw mooy li may wax rek. loolu ci ci kii la de ci amateur yi man amateur yi laa fi nekkal bu dee gis nañ na Gambie moom foofu foofu la làmb jëppee coow waaw bu ñu bëree jee Gambie ba tey baax na bu ñu gisee tamit ma bëree ak Baye Mandione moo ëpp coow ba tey ma bëree euh, Kaolack ak Baye Mandione moo ëpp amatul loolu de làmb léegi amatul loolu de sama turon da doon wax làmb business la waaw sport business la waaw bu fekkee ne moom jaral na ko mu ñëw ñu bëre fay nañ ko lu ko jar mu ñëw ñu bëre ah làmb amatul loolu léegi ah man <laughs> man du ma la wax lan la ba mu jël avance bi rek après ci nga xam lan la man damay damay mbapat ci àll bi di daan ñu ëpp bàyyi ma ñoon fuuf maa ngi yeew non non non maa ngi yeew samay nag di bërek ñu ëpp bàyyi ma ñoon fuuf ci àll bi non waaw lépp laa mënee nag damaa mën ci bii boor mën ci bee boor public ngay wax de public public amul ku ma ko ëpp si ñoom ñaar ñooñu ngay wax fépp Gambie xanaa déggoo lu may yóbbu Gambie Gambie ay bis laay duy di ko yóbbu Gambie bu dee Kaolack la nag moom bu yéexee man ma tëj stade bi gisee moom dootul dootuñ jaayati loolu moom xam naa ko waaw suñ ko bëggee comme li américain wax loolu ci ñoom la des suñ ko bëggee ñu def ko benn tournoi te tournoi bi buñ ko defee it dina ngeen taxawaat ak seen i micro bu neexee yàlla ngeen gis man maay nekk euh, roi bi ba tey. yow yaay jël tournoi jël tournoi bi. ñoom ñaar ñëpp maa leen gën a nekk xale. ñoom ñaar ñëpp maa leen gën a nekk xale. waaw comme li nga wax rek ñun ay saalum-saalum lañ di wax ne képp koo xamante ne ni yaa ngi dëkk Kaolack te ngay saalum-saalum rek di la wax ne am na contrat ak jam soxla nañ nag ndimbal ci combat bi parce que tamit fii ku fi ñeme dañ laa dee wax ne rek soxla nañ ci ndimbal bu ne côté bu nekk parce que tamit ay xale lañ di def carrière bëgg a def comme nu Mouhamed Ndao Tyson doon def euh, di tàllal ñëpp loxo ñu ñëw jàpp ci combat bii damaa bëgg a duy stade bi ba mu fees dama bëgg a duy stade ba mu fees parce que euh, comme li may wax rek bëreeg ma Mandione bëreeg xoyantaan loolu benn jaar-jaar la rek boo xam ne dafa nekk sama yoon ma fël ko pour jàlla mais nekkul ñoom laa opté pour bëreeg waaw damay dama dañoo nekk sama yoon rek dañoo bokk yoon rek ma war a mën a bëreeg ñoom waaw su ku ma ci benn ci benn audio nga ne ki nga xamante ne moom mooy xoyantaan bu jëlee sa avance danga koy duma daan ko est-ce que looloo tax xoyantaan di di hésité selon yow ak lan moo tax nga wax loolu waaw mooy li may wax rek xam nga soo gisee ma wax loolu dama leen bu jëlee avance bi ma ma wane secret waaw dafa am secret boo xamante ni mooy daan xoyantaan te man maa ko yor waaw daa am secret bu boo xam ne mooy daan xoyantaan te man maa ko yor kenn du dem geer di wax euh, armam non loolu loolu après la na jël avance bi ba pare rek bu dee bu dee jël na avance bi loolu après la waaw mbapat lañ bëre ñoom ñaar loolu du arène dem mbapat la mbapat moom bokkul ci farma non non non mbapat la mbapat la bokkul waaw mais wax ma arène la ñuy wax bëre dóor nga wax léegi waaw ba tey bu la neexee léegi euh, comme li ngay wax rek bëre door la wax mbapat la bëre suma mag waaw man nag ci bëre door bi laa ko wax ne bu ñëwee ma wane sekkerem non non nekkul sama euh, xel damaa liggéey li may liggéey ba toll foof foo xam ne làmb boole ñu moom it mu liggéey lamb boole ñu rek làmb daf ñoo boole non mënuma guma ko wax ba arbitre siffle ngeen di soog xam lan mooy secret xoyantaan xoyantaan aw ma leen lu ma koy wax dëgg yàlla aw ma lenn lu may wax xoyantaan waaw bu jëlee avance ba pare ci laay soog a nag li may def ma soor ko def bu dee tamit ñeme wu ko jël tamit bu dee bàyyi ma ñoon mooy jël avance ba tay a ah, ba tey man it ma ma doog a def euh, li may def bàyyi ma ñoon waaw mais ñoom ñaar ñëpp ku ci ñeme daal wala ku ci pare rek man maa ngi lay xaar. Gàmbi yow man la fa dese. waaw di ko wax dérangement bi métti na trop parce que mu ngi ba Gàmbi ñëw euh, di wax ne waa Kaolack daal. am naa combat man ak Jamaïcain am nañ contrat waaw di wax ne nag ngeen xaar ñu Kaolack te nag combat bi bëgg naa autorité yëpp ñëw jàpp ci autorité yëpp nag du ma tudd tur autorité yëpp nañ ñëw jàpp ci combat bi ñoom laa ko jox parce que dama bëgg a wane sama bopp waaw talal naa leen loxo nag